bon dañu ñëwoon tey Touba pour ñu xam ñun Touba lañ juddoo fi yaroo di chargé de mission si présidence de la République ci cabinet président de la République ñu jëm ci ay élection législature président de la République waxoon nag man di suma papa di sama wayjur di sama xarit demoon ma pap loo jàpp na ko bàyyi te dem waxtaan ak ndaw ñi ak jeunes loolu moo indi suma wàcc tey si base bi ñu waxtaan ak ñi ma juddoo ndool yaroo ndoo màggandoo fii ñu fi gis ñi ñëpp fii man fi laa defee sama lépp fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màgg lu ma fi doxoon ñi nga gis ñu ànd ak man ñii ñëpp ñoo fowandoo ñoo defandoo lépp kenn ku ne bi ma ñëwee si yow li ma la wax amuñu xaalis bu ñuy may kenn amuñu luñ indi mais am nañ ay pexe ndax si état lañ doon kon am nañ naam si ñoom ñoo xam fekk naa leen ñu jàpp dara mais damaa ñëw waxtaan ak ñu ne leen président de la république yàlla dogal na muy suma way jur di sama xarit di suma papa ma nekk si cabinet di waxtaan ak moom yéen ndawi Tuubaa war na maa mën a porter seen voix ngeen lan na tey maa leen njëkk a soxla mooy dama bëgg ñu voter président de la république pour mu am majorité à l'assemblée nationale bu subaa ma mën a dem si moom pour taxaw laaj pour yéen ndaw ñi laaj pour jeunes yi formation yi financement yi loolu moo taxoon ñu àndoon ak suñ benn partenaire def coalition dogu pour le grand Sénégal vote pour Benno Bokk Yaakaar ànd si ak Doudou Ka directeur AIBD indi woon ay financement si jigéen ñi maye fi ay lampadaire maye fi ay machines yi ñëw si centre formation yi si jiili mi nga xam ne day former ay jeunes ay jeunes yu bari jaar si moom ñu indi woon fo si lool dem si Baye Thierno Dieng euh, Ndiaye Baye Thierno Ndiaye chef de village Touba Ndiarène jën jigéen ñi ne ñu dañoo bëggoon ay formation ak ñu jàppale jàppale leen si ay machines yi ñaw am na quartier yoo xam dugg leen ci si Touba fekk lamp yi Touba si kanam yi àggu fa ñu jënd ay lampadaire may leen ko xam nga Touba population bi dañoo jeune te jeune jeune mooy wax ak moom liñ seen passion mooy football donte naam dëkk bi dañ ko fi aaye mais ñi ngi génn di ko defi seen passion boobu ñu am nga jàppale leen wut ay jeu de moyen pour ñoom wut ay ballon pour ñoom si kanam buñ génnee si élection yi am na benn tournoi boo xamante ni ñu ngi koy préparé cinq millions laa koy tëggee pour jeunes yi si participer ku nga am deux cent cinquante mille loolu ñu si jublu pour gën a xamante ak jeunes pour gën a waxtaan ak jeunes yi pour deux mille fii ak deux mille vingt quatre ñu porter seeni seeni soxla fii ak deux mille vingt quatre seeni mébét ñu mën koo yóbbu si kaw ndax tey yàlla dogal na man jeune la ñoom ñoom ñoo juddoondoo ñoo yarandoo maa ngi si cabinet président de la xëy na ñoom man la ñuy gën amal âge pour wax ma li leen naqari ak li leen nekk si am naa sensu man mën a wax ak président de la république xëy na gis nga fi dawalkatu charrette yi tey gis nga fi jeunes yi ñoom ñëpp dañoo volontaire ñëw am na si ay jeunes ñëw si man ne ma ñun Pastef lañ bokk mais amaluñu si benn njariñ yow suñu frère nga mën nañoo ànd ak yow loolu lu am solo la mais nag choix bi nga xamante ni ñoom def nañ ko pour man tey peut si ñaan président engagement yi nga xam ne jël naa ko ak jeunes yi yi nga xam ne jël naa ko ak jigéen ñi il faut état jàppale ñu pour ñu mën koo honorer tey dañoo ànd ak benn partenaire bu ñuy wax Doudou Kam mu def si alalam ànd ak suñu yeneen partenaires yoo xam ñoo ñu jàppale def si seen alal ñu ñëw wax ak jeunes yi mais il faut état boole ñu ak ñi yor financement yi DER Promis FONGIP pour ñu enrouler ay financement yu gaaw jox ko jeunes yi pour ñu liggéey formation yi tamit il faut état dimbali si jeunes yi pour ñu liggéey parce que jeune jeune mooy wax ak ñoom bi ma ñëwee discours yi ma leen mooy maa ngi ci cabinet président de la république yàlla dugal na yéen tey damaa soxla seen carte waaye man man na maa wax ak moom su ngeen fexee ba président de la république kenn ku ne li nga jàppoon nga bàyyi ko ba mu gagné am majorité assemblée gagné Touba surtout ni mu bëgg dina gën a yomb loolu mooy suñuy jéego si Touba loolu moo ñu fi indi moo tax ñu ñëw waxtaan ak jeunes yi waxtaan ak suñu morom yi waxtaan ak suñu yaay yi porte à porte def ay karawaan tey ñu ko doon tëjee di remise de permis de conduire yi ñu indi woon ak machines yi ak lampadaires yi ak doonu ma woon sama base politique du woon Touba basé wu ma fi woon donte fi laa juddoo fi laa maa ngi doog a décidé pour jàppale ci président de la république bi ma ñëwee sama option si lenn la woon mooy jigéen ñi nga xamante ni mën na maa dem seeti leen ak jeunes yi nga xam ne ñoo yor association yi ak sama moroom yi ñoom laa opté man électorat bi may wut si ndaw ñi laa ko bëgg électorat bi ma bëgg tourné ko mu jëm si Benno Bokk Yaakaar si jeunes yi laa ko opté bu bañ a doon politicien euh, bi fi nekkoon ne da leen di dig temps dem man dama bëgg li ma leen après ñoom bu buñ defee ni ñu waxante man ma ñëw indi li ma leen waxoon ndax loolu ñoom dinañ ma si jàppale pour bu ëllëgee bu ma demee si président de la république wala ma dem seeti am ministre ne ko ay la yoween ndawi Touba maa porté woon seen kàddu maa leen waxaloon maa leen détourné woon pour ñu gëm politique du président de la république pour indil ko majorité à l'assemblée ñoom dégg nañ message bi ñoom ñëpp booba ba tey bi ma ñëwee ba Touba ay jeunes engagé wu ànd man di def porte à porte def ay visite de proximité ànd ak man si karawaan yi te laaju ma laaju ñu ay discours laa leen tenir discours yi ma leen tenir nag état rek moo a si mën a jàppale pour loolu mën a am xëy na président de la république mi ngi may dégg mi ngi may gis suma papa la suma xarit la suma wayjur la moom moo yor état moo yor lépp moo yor financement moom rek laay tàllal loxo pour ñaan ko li nga xamante ni dig nañ ko jeunes yi buñ àggee bam am majorité assemblée mu gagné Touba cette fois-ci loolu mu def ko pour jeunes yi gis seen bopp bu ëllëgee bu laajee ñu jox